aja jërë ngeen jëf mbokk yi nga xamante ni yéen safoo di seetaan seen télévision Diaspora 221 di amati mbégte nag saa su nekk di ànd ak yéen ci suñuy programme waaye tey nag mbégte bi da da cay raw ndax nit ku nekk ak mbokkam te dama toog ak sama mbokk Kaolackois mi Ousmane Noël Dieng le chouchou des Kaolackois ki nga xamante ni moom moo représenté la jeunesse kaolackoise partout dans le monde lépp loo xamante ni rek war na taxawu Kaolack da ciy dem yóbbu drapeau Kaolack mu nekk suñu titre nekk suñu sac moom nag mooy le lion du ministre Diène Farba Sarr tey nag dañoo war a waxtaan ci ay aspect yu bari notamment ci élection locale yi nga xamante ni moom la ñu romb waaye tamit li nga xamante ni mooy élection législative yi nga xamante ni moom la ñu war a ñëw dem waaye tamit nag am na ñoo xamante ni ba tey ñoo ngi toog naan digganteeg le ministre Diène Farba Sarr am na lu ci nekk loolu yëpp mbokk yi dinañ ko daal di saytu balaa ñuy également dañ koy daal di bàyyi moom Ousmane Noël Dieng mu daal di nuyoog mbokk yi nga xamante ni ñoo koy seetaan le président Ousmane ñoo ngi lay nuyu. way euh, Fifi maa ngi la ñuy fay. Mhm. gannaaw ba ma sante yàlla baax baax. Mhm. di julli ci yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam euh, di nuyu son excellence monsieur le président de la république Macky Sall. Mhm. di nuyu suma mentor di sama papa di sama xarit lépp. Euh, monsieur le ministre Diène Farba Sarr maa ngi nuyu di nuyu toute la population sénégalaise ak képp koo xam ne seetaan. Mhm. di nuyu nag waa diaspora 221 parce que du. du du du yomb parce que ñoom ñëpp a koy seetaan. dëgg la ñu nag mon frère et ami Babacar. Mm-hmm. le puissant Babacar. le puissant Babacar. Mm-hmm. yow yaay l'homme fort de Kaolack yaa ko wax sa bopp. ah mais c'est ça loolu du man maa ko wax mais nit ñee ko wax. nit ñee ko wax absolument. d'accord Ousmane comme ni ma ko waxee tout à l'heure euh, on a 30 minutes pour convaincre les Kaolackois et pour convaincre également les Sénégalais donc euh, ñu ñu ñu ñu ñu def li nga xamante ni mooy directement essentiel. ñu daal di ñu daal di romb ñu jóge ci élection locale. Euh, d'abord pourquoi Ousmane Noël Dieng sama première question fa laa koy fa laa koy commencer pourquoi Ousmane Noël Dieng gëm bu mu gëm boppam woolu bu mu wóolu boppam chaque fois day fëgg dënnam Kaolack lii Kaolack laa man euh, euh, euh, pourquoi dayo boobu nga am jeunesse Kaolack ànd ak yow yow du jeunesse pignon ànd ak yow parce que man Kaolackoise la mag yeeg maire yeeg paa yi imaam yeeg homme de ñëpp ñëpp ñëpp ànd yow pourquoi yow présenté woo ci ci élection locale yi d'autant plus que waxoon nga di nga présenté woo pourquoi demoo bof euh, c'est une très bonne question maa ngi lay remercier si question baax di wax ne xam nga nit boo nekkee ci bërëb dafa am discipline lu ñu naan discipline de parti. on nga am kilifa. Euh, te ku amul kilifa jënd jëndi sa kilifa. dëgg la kilifa des fois dina dina dina dina dogal loo xam ne. Mhm. mu neex la mu naqari la nga boole lu la neexee lu naqari topp ndigal li. ma loolu laa xam ci kilifa loolu lañ ma jàngal ci kilifa. te suñu kilifa ndax sama kilifa kilifa mooy le président Macky Sall. Euh, lu mag lu Diène Farba Sarr am gannaaw yàlla mi ngi jaaree ci président Macky Sall. tout à fait. Euh, donc man lii tey jii football boo la ma fekkee fii may toog sama tur beeg Ousmane Noël ak social ak lépp yàlla mi ngi ko jaarale ci Diène Farba Sarr. Mm-hmm. donc man Diène euh, Farba Sarr dogal monsieur le président Macky Sall dogal li mu dogal. Mm-hmm. ah même sax su fekkee dogal na sans sax mu mu yëgal ñu. Mm-hmm. man li ma war mooy. kenn mënut a ci der di xas yàpp. saa mu yëgal ñu mooy considéré wu leen. Euh, non pas considération non pas considération impliqué nga considération c'est trop dur. Euh, considération bu ku ku la considéré di la jox poste de responsable. la tamit. Euh, waaw dama ne waaw loolu mën na nekk sa kilifa. ci dëkk bu toll ni Kaolack. nit mën na la jur def te tàgguwu la. waaw on est d'accord. donc mën nga am sa waajur laa bu def. loo xam ne la boobu suba dama lay maye. yow ñaati nga gis ko waajur boo ne suba dama lay maye ah noonu papa te da nga dem sëy sëy bi nga sëy di fa dem am fa am fa yàlla am fa yonente am fa jur fa doom boo xam ne président lay doon mhm. loolu mu di kilifa def na ko ba sonn mhm. et donc président Macky Sall mooy suñu kilifa mhm. mooy suñu mooy lépp donc bu bu mooy kilifa Diène Farba Sarr léegi bu décidé li mu décidé ñu ñëpp dem xëccoo samp suñu ndëndal mu jël kenn joxoñ ko ne kii laa décidé moom laa wax. est-ce que réellement pare woon nga pour déposer. nawet waaw moom laa lay expliqué xam nga si si si man ko xam ne <laughs> su ma. dawal yow bañkat nga. du ma waxantu. léegi nag su ma man pas pour déposer mais dama woon dama sàkkoon ci moom. ah d'accord mu def ma tête de moom wala mu def ko Diène Farba. allez vas-y. parce que yegguñ ci déposé. d'accord déposé mooy mu def ba ma défier ko dem def dem déposé feneen. mais yegguñu woon foofu. fu ñu yeggoon mooy. ma sàkku ci président Macky Sall na ko booy tànn xoolal tànn yàgg ngeen dégg yëpp ma yuuxu fu ne na ko bul juum Kaolack dañ maa fonk Kaolack dañ maa bëgg dama fi liggéey 6 ans loo xam ne la politique c'est la base et je sais que la base politique Kaolack dama ko téye man xam naa loolu donc may sàkku ci yow du force du def dara sàkku ci yow parce que Macky Sall moom kenn xam ne la paaka la kenn du ko jur ci mbaram ah, donc loolu jikkoom la mhm. ma sàkku ci yow nag nga def ñu tëdd liste wala nga def ko jéen farba te xam naa ne incha allah la victoire sera euh, assurée donc nag loolu amul moom mooy suñu kilifa nag ba mu defee la mu def mhm. ñu ñu tënku ci ndigalu kilifa mhm. dem topp ca lam def dëgg yàlla lam joxoñ ñu ànd ci ànd ak moom moo tax loolu rek la discipline de parti. mais du question de ay dañoo ñàkk fayda wala dañoo ay ay fulak fayda déedéet du question boobu mais question de discipline de parti la respecter hiérarchie bi respecter président Macky Sall waaye respecter suma mentor Diène Farba Sall mi nga xam ne moom président Macky Sall lundi la ak mardi. jour di jour seen diggante loolu mu ne kon du ma fekk diggante bu yàgg boobu noonu tey may ñëw coow li bari ñu ne Ousmane Noël défié na Macky Macky Sall nga yàgg nga yàgg attaqué ki nga xamante ni mooy Modou Ndiaye a archive yaa ngi fi dal nga ko dal bu nekk euh, après Macky Sall porte choix wam ci moom euh, bàyyi ki nga xamante ni mooy euh, Mariama Sarr affaire bi nag nekk loo xamante ni polémique la doon def mm-hmm. Kaolack mm-hmm. ñu jékki-jékki gis la nga def benn meeting de ralliement. Mhm. nga ne da ngay rejoindre ki nga xamante ni mooy euh, euh, Mounirou ma est-ce que loolu c'est pas contradictoire du ralliement nga dal ko ba pare. encore na da ngay dem jàppale ji encore ma sœur du ralliement. loolu lan la sa meeting bu mag parce que soo déggee ci meeting bi nee man xajuma ci gannaaw kenn waaye xaj naa ci gannaaw ndogul yàlla. j'ai toujours dit que ne Ousmane Noël Kaolack gisuma ku ma xaj ci gannaawam je le dis et je le répète. je suis le patron de Kaolack parce que patron Kaolack moom ngay def nii nit ñi dama leen soxla ñëpp ñëw mbàbbeeku ñëpp ñëw ak cofeel hmm. musuñu gis politicien bu taxaw ñu koy jooyal hmm. musuñu gis politicien bu taxaw mag daw gàddu bu sóoram dina ñaanal bay jooy amut hmm. politiciens yi ne Kaolack bu ñu demee bu ñu rombee romb nañ man su ma rombee damay drene ful nit ñi dañu jooy ñii di ñaan ñii di yuuxu ñii di daanu si kaw tali man maa ko am te li ma wax li ma wax waxuma ko rek pour wax dañ ko justifié dañ dugg ci internet bi nañ dugg xool samay image di nga gis ay mag kilifa borom jaaw di jooy ci suuf wala jeune di daw ah di xaajabam nag cofeel parce que politique aussi base la ak cofeel cofeel boobu lu koy indi mooy considération c'est pas de l'argent mhm. yàlla moo yor jaam lu ñu ñuy dundee yàlla lañ yor mais considération cofeel lu ko indi mooy yëg nit ki cofeel lu ko indi mooy franchement ah ngeen yàgg nit mën na la indi dépense su euh, ordonnance su cent millions wala cent mille francs bu leen nee ordonnance cent mille francs amoo ko waxtaan moom ba mu kontaan recevoir ko si wan ko kanam gu yaatu soo amul cent mille francs na ko yaay li maa ci teg nga baal ma su amoon lii maa def fañ nga ko te yëgoo ko yow fañ nga ko te yëgoo ko ndax kontaan na recevoir waaye bu ñu ñëwee ñu taxaw ci buntu kër yàgg fa sonn faalawoo leen faalawoo leen ba campagne ñoo nga commencé di di reetaan di yaatu loolu gars yi dañu lekk sa xaalis après il dañu def lu la neex donc euh, du ralliement ma ñor ci loolu du ralliement euh, président Macky Sall li ma la waxoon rek muy ñëwaat dafa dogal ba mu dogalee ma bëggoon ko wan ne ko dina ànd ak yow ci njëkk ak teraanga waaye sans condition dinaa ànd ak yow ci soxlawuma dara bëgguma conseil bugguma benn poste bugguma dara parce que dama bàyyi bañ def seen comité électoral ba pare dama bàyyi bañ def seen lépp ba pare ma doog a def meeting. loo jublu ci loolu. li ma jublu ci loolu mooy parce que damay ànd ak yow sans dara parce que man jënd laa gëm gannaaw yàlla damay ànd ak ci yow parce que ak fulla ak fay damay ànd ak ci yow ak gëm barki yonti yàlla Muhammad alxuraan laa tiim ba may ànd ak moom Ndiaye rax ba dama ànd ak moom ànd bu sincère pour est-ce que gisoo woon da daan moo tax. non non non pour am beneen discours boo changé. mais non non non non gisuma man man man ñaanuma yàlla ànd ak foo xam. day daan mais bëggoo dara bëggoo benn poste yow say nit dugaloo ci kenn. dugal ma ci kenn oo nañu ba sonn. mille appels parce que dama bëggoon bàyyi ba ñu def comité ba pare ma ñëw dugg na war na ko damay ànd ak yow sans condition léegi ànd bi ma ànd ak moom dafa sincère nag waaye nag fii. Hmm. man moo ma kaw la gaa ma boo xaw ma fu ñuy dem. cool ak waaye seen cofeel daal gañe naa ko seen amour gañe naa ko waaye nag moowuma Samba moo moowuma Paate moo moowuma Faati moowuma Rama. donc lu tax nga félicité woon ko. non pas félicité ma félicité kan. Euh, Modou Ndiaye rax ma ne ko yow yaay nekk le maire parce que man sama sama sama doole xajul ci kenn. waaw loolu laa wax. mais mais mais lu mooy. parce que jàppoon nga ni kat yeneen mooy mooy mooy li ma ñëwaat mooy li ma ñëwaat ne dama ma waxee man ak sama mbokk mais sama mbokk billaahi wallaahi taalaahi def nañ lu ne gëm nañ ne. am na ñu ma rus. meeting boobu ba ma ko defee pare am na ñu génn ci biir yu bëri na président Ousmane lu ñu duñ ko def. ah bon. dama benn affaire gis nga man boo ma defee lu ma métti mun naa ko muñ. Mhm. yaa la politique c'est la politique. Mhm. politique dafa fiir. Mhm. te en politique tout s'arrache nee na sa doon. munoo xëccoo li ngay xëccoo politique ci base nekk ci base ñëpp bëgg la. yaa ngi dégg. Mhm. yaa ko wax léegi nga ne sama diggante ak Mondial Rahma comme safara caas la woon. Mhm. gis gars yi gis nañ loolu. mosoo ko ko may dara moom tamit du ma may dara. Mhm. mu nekk lu affaire yoo xam ne tàmbali ba taa rek rek rek. loolu am un bon jour rek ñu gis ñu bëgg ma ànd ak moom ci loo xam ne choix boo xam ne peut ñoom am na loo xam ne ñu nekk seen xol ba léegi. am na ñoo xam ne militant yi am na ñoo xam ne ñoom da xol nag du om bañ koy bés man mën naa baal man mii mën naa toog ne franchement ànd naa ak moom waaye nit ñi doo seen ndey doo seen bàyyi mën mm-hmm. nañ la wax waaw ba pare waaw parce que amul sens nit ñoo xam dañuy ñëw ci meeting di la jàppale si ak seen doole man aw ma xaalis mm-hmm. barke alquran karim dañuy ñëw gis ko xam day def kaaram ba mu fees dell ñoo ne man maa bëggal sama bopp Ousmane Noël xaaruma dara mm-hmm. ñëw sama meeting mu fees dell ba pare nga dem di ma di fekk yow yow ak sa coono googu ak meeting nu mu méttee nga yàgg fa ñëw toog après nga ne damay dem dama koy nax loo ma naxee te amoo fa dara. yaa ngi dégg. amoo fa dara donc loolu dañ ma xamal carrément ne Ousmane Noël ñun yow lañ bëgg. li ñu sant ni nag ñoo wax dëgg yàlla respecté nañ la ba duñ la wax doo dellu bi naa nga waaye duñ ko def on préfère nag bañ a voter wala on préfère dem voter keneen loolu nag neexuma man franchement am na def nañ ko waaye neexuma parce que su ma sañoon man lama ma wax ñu def ko. ñu appliqué ko ñu appliqué ko waaye nag ñoom ñoo defar seen ñëpp ñëpp ñëw soo gisee maanaam au mondial xam toujours ci ci proximité. Mm-hmm. je vais sentir dama ko am lu ma sentiroon. Mm-hmm. dama yàgg sentir ne y a des frustrés dama yàgg sentir ne Kaolack majeure partie bi pour ñu bëri ànduloo ak moom. ñu koy wan des dents blanches alors que usine de côté derrière. waaw mais Kaolack nag dañ ko bëggoon parce que xaalis bu mu doon génn di joxe. moo tax ma ne la moo ne la euh, xaalis fu mu génn rek nit ñi ñëw moo tax ma ne la man bëggee woon noonu politique yi dama bëggoon tey moo ñi dëgg ak beneen facette mooy laa bëggoon wan mu ñeerax ma beneen facette facette boo xam ne day ñëw ci gaa yi. ne man maay moo njaay rax moom porte à porte proximité comme ni ñu koy defee dem si gaa jaaykatu keccax bi mhm. dem si jaaykatu taabal bi jaaykatu tàngal bi ne ko mais yaay bu nga def man mii la moo njaay rax ma ma dañ maa bokk dañ maa teg ba su ma ko defee yaay dañ si gis sa bopp mhm. billaahi dañ si sa bopp bëgg naa kaw la def kaw la la ville la plus propre bëgg naa tali baax yaay an sa sët an sa doom yi kër gi bëgg naa ñu am liggéey bëgg naa lii bëgg naa lii loolu moo tax ma ci yow nga votel naa yaa ngi liggéey lii loolu rek laa bëgg ci loo nekk looy jaay mun ma caaf mm. caaf ngay jaay am yaay ñetti junne ngi nii man maa la ko jox boole ko ci caaf li dégg nga mm. liggéey maay sàkku ci yow liggéeyal ba sonn defal li man maa la ko jox mm. ko xaalis mais moom bu naree toog ba élection locale nit yi dafa ñu nawel bu toogee ba local yi jot pour mu def loolu kaw la ko waaye dañ koy mbaral dañu leen xaalisam dem def lu ni ma ko bëggoon defee laa wax ak man ñu ànd ñu ñaar billaahi wala ni koon dafay gagné à 100 pour cent parce que tey ji fii fii mën nga toog fee bañ Ousmane Noël waaw na kii safuma dafa bëri tiitar comme ni ko gars yi di waxee rek dafa soof waaw graaw waaw moom wax dëgg yàlla tiitar waaw non ku nekk am na tiitar yow mii sax yaa ngi tiitaru <laughs> tiitar moom ku sañse tiitaru ku yàlla teral nga tiitaru ku ku moom c'est c'est c'est humain. ko koy wax rek. waaw mooy mooy franchement ku bëgg sànni xeer. wala wala ku la bëgg. waaw considération la. ku toll fenn la ak bëri titre considération la parce que tu pèses lourd. si boppam moo tax mu considéré la def bëri titre mhm. wala soit bu dee jigéen la daf la fan bu dee bu dee góor la gentleman la mu xaw la fan yi ba pare bañaale la super ci suuf wala mu salu nga dafa bëri titre dafa xaw la bëri yee all right on continue léegi maa ngi woon ci dabu ah. moo Ndiaye Rakhma mënoon a dabu gis nga wala modestie. Mhm. lu mu la mayul dara du la ko may. tout à fait mhm. ba dama xam Saloum Saloum bàññee sonn ko. bàññee si ne Saloum Saloum bëggul mbokkam. dëgg la. Eh? Kaolack ah, si. waaw waaw Saloum Saloum bëggul mbokkam Saloum Saloum a gën a doy waar ci àdduna ay ay fa ay kii da jóge fi fa soof ay. ñun ñun fa bëri fa bëri nang bëgguma ko jaar bëgguma jaar bëgguma jaar ci ci ak kii di wax dañoo soof bari tiitar jóge fi Dakar de loolu c'est vrai Saloum Saloum léegi nag pour Saloum Saloum bi xam ne ne moom jaayoo ko affaire mhm. dëkk boo demee fekk fi nit ñi def benn tànk dangay doxe benn tànk comme ñoom tout à fait wàcc ak modestie bi mhm. wàcc biir Kaolack bu la neexee nga sol si tig-tig mhm. bu la neexee parce que munoo doon yàlla teral la nga doon gëree am am am alal am kat bu rafet di sol costume bu rafet sol jersey bu rafet ba pare di ko jaay nag kii xam ne amul dépense suba. nangu naa duñ la faale loolu amul sens nag. dëgg la yàlla may loolu ba pare jëratul wane. le lu jar a wane mooy damay wàcc ak kaw la sama gars yi siyaar naa leen eh non nga wàcc kaf ree waxtaan a gars yi parce que nit mën na la bañ foofu. ëllëg dina sëtët nekk de waa amul problème quoi man rus naa quoi. mais kii nii la mel nekk de mhm. sëtët yow gañe ko. Mhm. bul xeeb benn personne gañe nga ko te xamoo ko ci tët mais mu njaay rax ma nekk lu ñuy wax ci mu njaay rax ma nekk di la OFA xol pourtant xol bi dara na ko ci de pourtant ku baax la man da gars yi naa ko votal quoi te pourtant il avait décidé ne kii du ko votal dégg naa lu ñu yàqee deram dégg naa ñu ne sàcc na fii wala def na lii wala def na laa dégg naa yàq nañ deram gis nga bu ñu bu ñu yàqee si der da ngay da da ngay dindi tuuma dugg ci population bi. wàcc kàddu yi man dama gëm sëriñ. est-ce que yaakaaru na ba pare. waaw de confiance baaxul. waaw tey am nga sëriñ man maa njëkk a gëm ne sëriñ lu baax la. ndax sëriñ moo remplacé yàlla si kaw suuf. man gëm naa sëriñ de. damay dem ñu may ñaanal yàlla gëm naa suñu sëriñ su baax si. waa kër Maulana Cheikh al Islam radiyallahu taala ñu baax waa kër sëñ Bassirou Mbacké Saxoonu Bamba waa kër Sidi Hadji Malick sëñ Abdou Abdi Kane ñun dama leen gëm parce ay nitu sëriñ def ko sa sëriñ rek def ko ci xaalallahu xaala rasul sëriñ loolu ak xam wala xaala politique c'est la base. dëgg la xaala politique c'est la base. léegi sëriñ si nga def leen ñoom sa wéeruwaay su ma demee wàcc sama jesne bu rafet jox cadeau ñu ñaanal ma yàlla pare naa ci ma dugg ci base bi. Mhm. waaye munoo chaque jour que jëfee rek. ci sëriñ si parce que sëriñ bi am na am 11h 11h lay jóg parce que dañuy jaamu yàlla ci bu jógee 11h sax balaa ñu ko tegal ndekk ak yooyu noonu vote ba jeex na mhm. na am sax voté wul. Mhm. mun naam voté wul kon sëriñ si c'est important suñu wàllu yàlla ak wàllu yonent waaye c'est pas important ci wàllu politique politique c'est la base au fin fon de Kaolack duggu gauche droite bul xeeb jaaykatu caaf bi bul xeeb jaaykatu màdd bi bul xeex borom tànk yu xar yi seen tànk yi xar kàddante la yor bul xeeb géew te gëdu sawar dafa late waaw dafa late Ousmane Nayouni ku late la quoi kii lépp lay dem hmm. kooku koy wax poli politique dëgg la te gëdu sawar bi yoru kàddante taasukat bi yorul carte d'identité am. ñoom ñëpp ma ne jaaykatu fonde bi yorul carte d'identité mm-hmm. ñëpp waxtaan ko. xëcc ko sa bopp. Mm-hmm. na man maay Modou Ndiaye ma lii laa bëgg def lii laa bëgg def su ko defee ku la mere woon rek dina la mujj a mais peut-être euh, def na proximité nag xam na wàcc na si terrain. je je vais pas. du xam la wàcc man waaw wóoru ma parce que man oo oh, naa ko ci loolu man dëgg la lay wax. amoon na ay temps yéen a la lay wax. parce que man ànd nañ ci meeting fekk naa ko meeting. nekk nañ ci meeting mais terrain man terrain laa wax bokkul meeting gis nga meeting. meeting c'est pas important. Mm-hmm. meeting ñi nga am ba ñoo fa nekk. Mm-hmm. meeting ñi ma am ba laa ko fekk ñu ñëw. Mm-hmm. ba d'importance la politique ma wala wala election ñi nga amul ngay uti mais ñi nga am ba pare ma feesal stade amul njëriñ ci meeting. amul ci amul njëriñ ci élection. feesal naa sama ko amul njëriñ ci élection man tey tey meeting bi ma def mu fees téléphone laa jël salaamaaleykum gars yi damay defal meeting mu ñaar ma naa nga naan petit suba gannaaw suba vocal dem. tout ma def benn benn benn benn benn kii rek. rawa def wër benn Kaolack taf ak oto yi taf taf wër si responsable yi nag joxe paas yi. ci per naa ci. meeting ba fees dell mel nangam. parce que loolu loolu loolu dama ko liggéeyoon démb liggéey ko ci saafu wante liggéey ko ci ordonnance yi. liggéey ko ci mais mais est-ce que du président tamit euh, loolu la gisoon ci moom ba tax mu mu mu def ko mu def ko. Euh, mais président ah. président parce que Rahma euh, bu ñu daan wax woote Kaolack bokk na ci ñi daan ëppale d'autant plus que yow da nga daan am ay nit. waaw mais président moom da daan fees sa est-ce que loolu motivé wul président mais président c'est l'homme le plus informé du monde président su fekkee ne ne man mënuma gëm na juum la parce que président Macky Sall bu demee ba di juum ci ci ci ñoo xam ne kon y a une erreur kon l'erreur est grave. Mm-hmm. président Macky Sall warul juum ci loolu warul juum ci war dafa war a am information bu baax ci biir Kaolack président Macky Sall na xam info bu baax baax biir Kaolack dëgg dëgg dëgg ñu ko téye dëgg dëgg ak ñu ñu bëgg dëgg dëgg dëgg war na ko xam président Macky Sall c'est le président de la république. Mm-hmm. du n'importe qui de ko tabb. Mm-hmm. e donc loolu warul juum ci loolu. loolu waru ko juum waaw non non non dama ne loolu waru ci juum parce que am noo xam ne waru ko juum parce que yow yow yàlla dafa ko may yàlla moo la ko may moo tax waroo ko juum mhm. yàlla moo la ibbil loolu nga xam ñu loolu information su fekkee ñu la jox une une information waxuma nag ñuy ñuy ñuy wax franchement ñuy def def yenn affaires yi mhm. mais information bu baax mooy président Macky Sall bu tabbee mu ñaarax ma mhm. ah, dëgg la jéen kaay Diène ah yow yaa créé Kaolack. est-ce que ba pare lan lay woowati Diène. déedéet man place Diène man mënu ma nekk. a visible. waaw mais ko ah, Diène est technique. waaw mais de de de la la lay woo. parce que man je suis man je suis pas technique Diène moo yor Diène lépp luy seen Diène mooy Sëñ Fallou le sëñ Fall waxoon maay Sénégal mm. jën mooy Sénégal lépp loolu essentiel nga gis nii tey nga gis réew mi ne autoroute boo ko ah, xamee jën farbaa tax ah, jën amul tàngu loowu léegi nag il a créé un jeune à son image mm-hmm. ne ko ma parti politique parce que munu munu ma nekk fi ne fee gérer ma li Ousmane ma nekk ci dëng bi ndax Sénégal mën jëm ci kanam loolu jën def li mm-hmm. jën li mu def amul min def bu ko def ci àdduna wan ma ban leader politique moo ko defal Macky Sall amul man maa créé Macky Sall man maa bind un combat pour la république livre dina ko di nga falu man maa ne dem toogu Fatick sans salaire maa abandonné poste. pour yow maa jaay sama kër maa créé parti bi kaw Kaolack créé ko Touba créé ko Diaspora. créé ko Guédiawaye jidde Caaroy kaw fépp ma créé parti ba pare. ba pare am diplôme troisième cycle deux diplôme troisième cycle dàq jàng ci gouvernement bi nag bàyyi yooyu yëpp dem toogal la Fatick sans salaire. di galérer pendant deux ans sans salaire. mais plus loyal que Diène Farba Sall n'existe pas chez Macky Sall. est-ce que Macky fay waaw dama ne plus loyal. waaw plus loyal que Diène Farba mhm. yàlla n'existe pas chez Diène Farba Sall. wax ko wax. waaw xam nga wax naa ko nga gëm la mais abul. donc donc donc Diène. est-ce que fay na bon. Diène bu bu defee loolu. bon ñoom ñaar du du bor parce que Diène ba muy ànd Macky Sall xalaatu kenn xalaatu na ay poste de responsabilité. Mhm. moom dafa amoon naa la banque mondiale fay na ko 12 millions mu bañ. Mhm. Macky Sall oo na ko ci bureau ah ba mu nekk premier ministre man président Macky Sall oo na ko na ko jën kudd laa la bëgg jox kudd kon xam ne yow fii kat ban ah. directe lañ jox kudd nga bañ. ak nu mu toll mu ko président. président bàyyi ma nekk ak yow primature ñun ñu créé club café ñu génn chantier yi du Ablaye du waxoon na ko Macky na ko yow Macky ba ma la xamee la sama chantier yi génn mhm. mhm. mhm. ku génn chantier yi. du jën farba. ku fi nekkoon chargé des grands des grands chantiers du du jën farba. jën moo fi nekkoon mu gën a chantier mu ne ko bàyyi mën na ko mën na ko jën xanaa na ko dof ku laa lay bëgg jox. fii amul dara indemnité soixante-quinze mille francs bu baax na. baax na je préfère toog yow liggéeyal la chantier yi génn kër may dem ay coude man ko ku ma ko nettali du jën de. Aliou Sall rakk Macky Sall moo ko nettali barke Cheikhou. mu musul gis mel ni moom fekk naa ko bureau PM mu toog euh, PM temps mu nekk PM mu ni bopp bi mu ne ko lan la président mu ne ko jigéen du nit man kii dafa def naa ne kii dof la quoi. jigéen dafa loyal dafa set. kenn takkalu ko ci dara. tout à soxlawul dara. un ministre de la république bu amul oto bu moomul boppam ci jën faral nga ko yéen. lii maa ko maa leen koy wax yéen. xam nga oto service lay dawal barki Seydina Mohamed yonent bi kenn du ko waatee di leen. oto boppam nit ku set nit ku jub nit koo xam ne c'est un patriote un vrai sénégalais. koo xam ne Sénégal la moom moom laa yemale ak samay doom du ma xool lu yàqu. def Kaolack loo xam ne kenn su ko fa def. créer parti bi Kaolack dañ koy oo ne ko jéen kaay ah mon frère jéen yow da yow yaa créer parti bi kawlak ba pare nag jéen ka la ko yow la vrai Saloum Saloum mooy yow am nga fa base Kaolack léegi nag samp sampoon naa la pendant depuis 2014 ou 2012 yaa ngi gagné élection yi élection bu mos a am jéen Farba gagné nga ko. Mhm. léegi dama bëgg changer nag. bien vrai que l'équipe qui gagne on la change pas. Mhm. ça je le sais. mais nag dama bëgg change nag jox mu njaay rax ma léegi jën loo ci gis dama xam jën jëmal ko rek jën soxlawul dara xëccuwul dara. Mhm. mu ne ah, na d' accord léegi nag ñëwaguma jën dama bëgg ngeen jàppale ko man yow laa am tuuti mon frère. Mhm. jàppale ko ol Ousmane man jarul may recevoir ah, jaru ko. man na wax ak jën rek man jën sama patron. moom mooy suñu patron ñëpp man na wax ak jën rek jaru ko. mais na wax ak jën concerté wu parce que yonent yàlla Muhammad moo gën a foor Macky Sall yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo gën a foor ku gën a foor Macky Sall yàlla daf ko woo ne ko eh Mouhamed day diisoo ak saaba yi Ababacar Omar Ousmane Alioune dara wàcc des fois dara day wàcc Omar ne ko yow yaa ko xoole yàllaa ko wax yonent bi na maa ko mu ne nañ ko nañ ko saytu Omar mu nañ ko saytu kon nañ laajte buñ laajtee yàlla wàcce xa wax Jibril ne ko Omar moo am dëgg ci kanamu yonent bi ah <laughs> ñaata yoon nga ne fa waxal waxal waxal Jibril waxal Omar waxal yonent bi ne ko sallallahu na def lu Omar wax. allahu akbar waxuma nag président Macky Sall. waaw waaw kon diisoo dafa baax. tout à fait. bu président Macky Sall def tey boo doon tudd boo ko doon tuddee erreur. mooy ñàkk diisoo rek. moom mooy président. c'est notre chef. ñëpp xam nañ ko. di ja di waxat loolu sax c'est enfoncer une porte déjà ouverte. te yow kese yaay am sañ-sañ bi bizarrement kaw la ci politique yi ci politiciens yi yow rek yaay am sañ-sañ di adresser directement message le président de la république. parce que lu tax loolu sañ-sañ boobu. mais président Macky Sall c'est le président le plus jeune président Macky Sall wax dëgg yàlla moom la yàlla di moom mooy suñu njiit su fekkee da li ngay dund dëgg la ak ñun ak moom mais lu ñu jëlee ci terrain bi fu ñu wax. président Macky Sall institution la kenn mënu ko gis palais chaque jour dem fëgg bureau na ko président Macky Sall jël ma. xam ne kon bu nu loolu nag. luy gars yi di jooytu. luy gars yi di wax pour nga bañ koo nax il faut nga wax ko dëgg allah wal xaqu wal xaqu allah yàlla mooy dëgg-dëgg yàlla. gis nga poste de responsabilité ak bureau yi bu mu tax ngay kàcc bu mu tax nga jaay sa ngor li dafay jeex. Mhm. nit dafay des su ko defee say doom ëllëg nga mën a am way nga xam ne lii lu am rek man lu am nii. Mhm. yëpp waxoon naa ko. Diène Farba lépp waxoon na ko tey ji bu oowoon Diène Farba oo Mariama Sarr oo Mimi Touré oo Awa Guèye oo Nafisato oo ñëpp ne mun ngaa ax maa ngi nii yéen ñëpp nañu ko jàppale man yéen laa am président Macky Sall ku wax suba damay français kër doo nelaw moom la ko yàlla may waaw Abdoulaye Wade bu la ko waxoon da nga naan ah bon da ngay kontaan ndeysaan Abdoulaye Wade waaye ndeysaan ah, ndeysaan da wax ndeysaan ndeysaan hmm. mais Macky Sall bu oo na la fii ça va dans la président Macky Sall président Macky hmm. loolu nga njëkk wax barke alxuraan xam naa la yaa ngi dégg léegi nag bu loxee nag franchement su ma laa bëgg ñëw sa kër fa laa bëgg añee dama gis li ngay liggéey ci journalisme dafa rafet yaa ngi def may bëgg naa ñu waxtaan daal su ma man Macky Sall war naa ñëw Seydina Mohamed ñetti fan doo nelaw parce que yàllaa ko ko may tout su ma la ko waxoon du la def dara mm-hmm. bu la ko ci waxee du la def dara Pa Moussa Sow bu la ko da koy dàq mm-hmm. mais man président Macky Sall bu la ko waxee yow di nga am loo parce que président Macky Sall du n'importe qui ku waxal ñu xam ne dëgg nga bëgg léegi Macky Sall bu ñu ooyee ñun autour du table mhm. oo Diène Farba oo ñëpp mais wax dëgg yàlla ñëpp ay kontaan ne président Macky Sall yëg nañu ñun yëg biir lañ bëgg rek mhm. ni yëg na Diène Farba mhm. yëg yëg dafa neex du alal ñun ànduñu ak moom ngir alal encore une fois le président Macky Sall ak Diène Farba saar du xaalis du poste de responsabilité ngor la considération la mbëggeel la cofeel la. donc ñàkk yëg boobu moo feeñ ba ci élection ñàkk yëg boobu tey Diène Farba mën na ko muñ. muñ la nag. <clears throat> lu ne dal na ko ci APR muñ na ko. élection de de de 2019 présidentielle dafa gagné élection yi plus de 15 meeting la def. plus de 15 meeting la def feesal lépp. Mhm. dugg ko ñëpp ko respecté parce que. Diène Diène Diène Farba c'est un intellectuel. tout à fait c'est un technocrate il est mm-hmm. mm-hmm. Mm-hmm. am na charisme am na am am na lu ne ñu ñi bëgg nañ ko def na dara Kaolack il a pris plus de quatre cent quelques jeunes ñu ngi liggéey te sans mu ko def sa ay affaire juma bu daanu Kaolack moo ko tabax. tout à fait tali bu bu baax pavage cadre de vie. c'est c'est lui bu ñu Sénégal xamee c'est lui lu mu def Kaolack moom la tey te amul sax euh, sam mu boole ko wax bu jëf ji bëree moom la bu wax ji tuuti bëree du moom donc loolu mu def ko. jën bu demee Kaolack. nga ne jën mën na ko accepter. jën mën na ko accepter merci beaucoup. nga amee relanché xam nga jën mën na accepter loolu. Mhm. na na naa muñ. naa muñ mais gis nga bés boo defee noonu jën. am na junne yi nit yoo xam ne ay jën ba mhm. ñu ngi toog seen kër am rancune. Mhm. président Macky Sall il fallait ma xam loolu dama koy dama koy jox exemple ci moom ci boppam. waaw ba ko Abdoulaye di génnee xeexee. ñaata Macky Sall ñoo mer. bari na. la ko jox réew mi. frustré doo ko bàyyi muy dem en politique. Mhm. addition la du soustraction. en politique addition la du soustraction benn frustré mën na la lor. Mhm. bu ñu kii frustré na la fexeel ba laaj ko lu xew. lan la nan la nga xëcc ku mu ñëw mu kontaan. waaye man je m'en fous. Mhm. bu ko neexee mais président Ousmane Noël dafa réew dafa arrogant boobi du dara. bu ko jël non boo ko ah, boo ko jëlee fii audience nangam nangam boobi dafa rëy ngaam nangam nangam. da ngaa dégg sa jëw xanaa nga nga bàyyi Ousmane Noël. jën farba waaw ah, jën mi dafa amati base. nga bàyyi far ba Diène Farba. Mariama Sarr Mariama Sarr rancunière la nga bàyyi. nga bàyyi Nafisa di amatul amatul nga bàyyi waa ji waxoon na ma moom moom moo mën nga jël teg mais nag yow di doon yàlla ñu war a boole nag ba ñëpp nga defar sa kër nga raxas leen ba ñëpp bëggante kilifa nu lay def. tout à fait mais doo bàyyi nii rek ne sànni naa rek dem leen topp yi. ñun dañoo ñun ñu mënoon leen def ni ñeneen ñi de mënoon leen def ni ñeneen ñi xeex def liste parallèle gagné élection yi. waaye nag boobaa ñu defee ñun jéen jéen ne na man booy liggéey naa ba mu toll fii ñaata at 98 ba 2022 du tey lay ñaaw. bàyyi rek mu muñ. donc loolu bu amee après waxtaan nga ak. waaw jéen def ne bàyyi rek mu muñ owuñ ma boolu ma ci dara man mi an maa yoroon Kaolack. Mhm. man maa créé Kaolack man jéen ba mhm. man mi indi jaay premier carte APR yi man maa ko jaay. Mhm. maa def lépp biir Kaolack. tey génn nañ ma ci waaye bàyyi mu muñ après jël alalam dama nañ dem campagne jën farba à son dafa dem campagne. ñu ñëw ci midi waaw si ñëw na. ba pare wax ñëpp def communiqué nee na ñëpp ko wooteel moo ñaarax ma kon ku soxor du def loolu. tout à na toog këram ah. Mhm. na ko mënoon na ko ci bañ a fekk ah. mhm. waaye nag boo defee loolu ku mel ni Diène Farba Sarr am na militant yoo xam ne Diène ba moom moom Kaolack. Mhm. li mu am ci la ci kaw la kenn amu ko ñi militant yooyu yëpp loolu dafa la ñuy métti seen biir xol. mën nga leen defal waaye boo leen defal ñu dem ba tiim nag man gàcce gi. danaan lii mënuma ko waaye damay def lu ma neex rek. xol ba du ko nangu. xol ba du ko nangu mu fàtte lu ko neex. amaan na nag boo boo boo jëmaloon Diène Farba ba ñëpp xam ne recevoir nga Diène Farba. ñoom ñëpp seen mer day wàcc. boo recevoir woon Diène Farba yëgal ko impliqué ko yégal ko ba ñëpp xam ne def nga ko loolu mais ñëpp seen xol day wàcc. dana ah président kat yëg na suñu mais mer bu yàgg la. rancune la. luñ téye la. loo xam ne Diène la xoolal élection 2019. koo xam ne moo moo moo yow 2019. ah jën nag coordonnateur départemental bu Kaolack yàgg koo nekk di gañ élection ñu toog ba si yàgg ah ñu ne nangu nañ ko jox nañ ko mu ñaarax ma te amul benn décision amul fenn fu ñu bindee nangu nañ ko jaay doole ay lobby créer seen lobby créer seen nangam créer seen ruq ñoom ñëpp ñu créer pousse jën farba. est nag jën war a wax. nawel waaw mais non c'est bien yaa wax. mais jën ce que jotul moom tamit. si si si si loolu d'accord ba ci si moom man loolu man dama ne ko naar balaay dee di góolof. waaw. nar bu jëlee nga ne wala soxla wala soxla bu ñëw nga pàttee bu ne bàyyi ma Fallou Xuma ngi reetaan dëgg laa ko wax. dëgg la de. na nar la xam ne baax li ma ko wax dina dina bàyyi ma wala ma wala ma bëgg a dee et donc moom lu mu waroon def mooy wax. mais comme te waxul nag ñu ñu wax. tout à léegi nag lu ñu wax mooy tey moom ñu considéré ko. jëmmal ko jox ko cër parce que il est respecté. il est respecté te dara taxu ci moom. amul dara lu ñaaw ci moom. léegi nag respect bi nga respecté noonu nag bul foonee moom nga ko def léegi lobby bi ngeen ko lobby pour yàqal ko 2019. ko yaa ngi dégg mu mer OPM. au premier ministre Boun Abdallah Dionne sama kanam Boun Abdallah Dionne na ko loolu da amul président Macky Sall yëgu ko de. ku def loolu jéem na ko ah man dañ ma oo ma affaire bi mu ñaar maa ko je je suis plus euh, le coordonnateur. waaw mm-hmm. ah, man waa li doy na waa di jël affaire bi touché ko. imagine deux jours rek avant avant la campagne présidentielle loolu métti na de deux jours. waaw ñu war dem campagne yi. Mhm. ah ñu ne ko yow yortoo dara doo coordinateur bi. Mhm. ma ne ko ministre dañ dem rek bu ñu demoon mu ñaaw. Mhm. affaire bi déstabiliser ko métti ko trop sax. mu ne man booy man ma créé sama kaw la ak Macky Sall nu ñu mel ñu def ma lii. ma ko non garaaw la waaye bu ñu rek ñu dem ministre nañ dem campagne Macky Sall ba nga xam ne campagne la ko lu ñaaw bu mu jógee ci ñun. ñu dem campagne 2019 suba ngoon meeting ay let menge fu la ñu dem dugg ci xolal benn dërëmu état demu ci. far ba kenn jox ko un franc kenn mësu ko jox un franc. fonds propre la woon. barki Seydina Mohamed amul maa ngi défier ñëpp présidence ak fépp kenn mësu ko jox un franc pour mu politique. il se débrouille tout seul ci alalam daw pour pour pour pour pour kiyal Macky président Macky Sall. pour rek sa réussite. ñu dem campagne 2019 toog daw daw daw xanaa di xaar sa promotion. xanaa nag. nit bu liggéeyee ba wàcc dina ko jërëjëf. tout à fait wala sax ko. Mhm. ba pare gañee waaw ba dañ ko dàq. ci lëbiñ bi rek boobu ñu ngi commencé xeex bi <laughs> boobu xeex bi ñu ngi commencé. Mhm. boobu ñu ngi commencé di bugg a pousse Diène Farba am na lu ñu dem jéem a teg lii la woon nag affaire baa ngi nii local bii la woon. moo soog a ñor. mooy soog a ñor waaye gis nga la ñor tàbbi gis nga fu mujjee tey ko jël toog fa. daanu cëru jàmbur kenn du ko jël boo nekkee xutbu zamaan am foo toll nga dem si chaise li may wax ni ñu xam yàlla xam nañ ko nga jël chaise boo xam ne am na kafa fa toog bés boo ñoree xomuf te fekk chaise ba nga war a toog am ka fa toog te yow mënutoo dellu ginnaaw looy def faatu fa yàlla